bonsoir à toutes et à tous amis internautes de 2A yi la chaîne du peuple maa leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal ci seen biir plateau le soir pour le deuxième numéro ak ma ci ànd ak Moustapha tey wéet bay bëgg de dee Moustapha nuyu naa la. maa lay fay soxna Amina di am mbégte di feggoo ak yow tey ci émission bi le soir. Mhm. équipe bi ñu daan àndal nag tim bi tey dañoo. mer daa daw tey. mer daa daw <laughs> eh, ak ak ak ak ak invité bi. invité ba ak moom daw. <laughs> <laughs> xam naa match bi la xam naa match bi aussi. Mhm. mais comme euh, dañ fi nekkal téléspectateurs yi rek chaque fois bu actualité amee. Mhm. ñu toog euh, jàngatal leen ko loolu dafay dafay baax nag. xam nga bàyyi affaire vide noonu. du wóor tàmm nañ heure bi. Euh, ñu wax ne suba kan lañ am sax comme invité ti euh, euh, suba est-ce que amuñu le chroniqueur waaw suba Pape Moussa Sow Pape Moussa Sow demain normalement Pape Moussa Sow la am. Mhm. Euh, la ñuy am. Euh, euh, Cheikh Omar Cheikh Omar Diagne professeur Cheikh Omar Diagne. voilà pour vous dire que ne rek on va continuer dans cette lancée chaque jour à partir de vingt heures incha allah fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi rek jàpp leen deux ans su ko defee ñu toog fii man ak honorable député maire Ahmed Aïdara feggoo ci Amina ak sunu invité. mi ngi ok ñi nga xam ne ñoo sunu techniciens yi ah waaw. ñoom Mansour ak ñoom Bitèye si lañ bokk ndax bu doo ñoom du ñu gis ñoom ñi nekk ci àddina bi yëpp donc faw ñu leen di faw ñu leen di nuyu nag si lañ bokk. Mm, noonu la fa demee ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen euh, jaajëfal bu baax mi ngoog euh, comme tous les jours euh, ni ñu koy defee donte tey man ak Moustapha dong ñoo fi nekk waaye dinañ leen tënkal li nga xam ne mooy actualité bi fi mu toll nii ak visite bi nga xam ne le président ba Bassirou Diomaye fay def na ko ci li nga xam ne mooy Touba jóge fa daal di jàll foofee ca Tiwaawan ñu ngi koy xaarandi aussi mu daal di dem foofee ca Mauritanie yooyu yëpp dinañ ci ñëw waaye tamit dinañ waxtaanee ci opposition bi ndax ginnaaw li nga xam ne euh, élection yi ba mu jàllee ba tey ñoom ñëpp dañ ne tekki tekkaaral ana lu waral lool loolu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam kanam Euh, ma leen di wax rek ngeen daal di aimer daal di partager li nga xam ne mooy live bi ñeneen ñi mën cee jot yéen ñëpp ngeen bokk ci waxtaan bi Adja Moustapha mhm. ñu ñëwaat rek ci li nga xam ne mooy euh, visite bi nga xam ne démb le président Bassirou Diomaye Faye def na ko Touba ñu wax mu daal di jàll foofee ca Tiwaawoon ñu koy xaarandi euh, foofee ca Mauritanie mu mel ni démb ñi doon wax ñu bari mujjee nañ noppi parce que déggoon ne fi ñu leen ciiñ ay salafiste gis ci campagne bi ñu naan demul fii demul fii ma euh, lii la moo tax demul fee mm-hmm. démb ñu mm-hmm. gis ko surtout mu indi yar indi indi indi indi teggin dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi foofee ca Tiwaawan ak Touba waaw xam nga Amina su régime bi nga xamante ne mooy euh, régime président Bassirou Diomaye Faye euh, moo ànd ci ak son premier ministre Ousmane Sonko balaa ñuy ñëw au pouvoir dafa am ay événements ak ay circonstances yoo xamante ne moo am ba ñu ñëw au pouvoir donc yooyu ak circonstances yooyu euh, dañu demoon ba indi ay préjugés ak ay ay wax yoo yu bëri yoo xamante ne nit ñi xamuñu woon fu mu jógee. boo fàttali ko fii lañ mësoon a gis euh, benn nit bu wootoon di présenter li nga xamante ne mooy livre mooy Ousmane Sonko livre solution bi mu koy présenter. Mhm. mu invité woon euh, Maïmouna Ndour Faye invité woon euh, yeneen journaliste Cheikh Yérim Seck ak mhm. ñeneen ak ñeneen Cheikh Yérim ne ko dégg naa say jabar dañuy muuru mhm. xam nga tey ji pour vous dire que ne mbiri salafiste ak li nga xamante ne moo jàpp parti Pastef boobu noonu accusation bu yàgg bu ñu leen yàgg tappal la mhm. pourquoi parce que ñoom seen i ay soxna wala kenn si euh, bu dee jomaay kenn si ay soxnaam day muuru mhm. kële ñaari soxnaam dañuy muuru ñu ne ko ñii am nañ gëm-gëm boo xamante ne tey ji bokkul ak lu fi nekk dëkkal leen foo xam ne dëkkuñ fa un président de la république bu dem seeti ji kilifa diine ça n'a jamais posé de problème mosul posé problème ci dëkk bi mais dem seeti ji kilifa diine rek mu def benn voilà def sensation ñëpp topp ci di wax ñëpp kii c'est parce que am na benn gis-gis wala am na ay wax yoo xamante ne monté woon nañ ko ba mu rafet mhm. ñu teg ko te dara du ci dëgg mhm. loolu moo waral dëmb bi mbir mi amee après ci wet gi nga gis ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di saboote di leen kokkali di leen mhm. tuddee ay neneen ak neen bëgguma jaar ci tur <laughs> di leen tooñ di leen waxee noonu parce que dañ ko defoon benn fonds de koo xam ne da ngay politique képp koo xam ne da ngay politique li nga war a mooy lan mën nga politique mais nga respecté dëgg mën nga politique nga bañ a touché foiwu nit mën nga politique nga bañ a touché waasu nit mais am na ñoo xamante ne malheureusement dañ koy jël def ko fond de commerce diw fee la bokk diw du jullit diw lee la gëm diw mm-hmm. lee la gëm su ko mm-hmm. defee bis bu ñëwee loolu ngay sosee noonu su demee ba daanu rek doo ci am benn gëm-gëm mm-hmm. tey ji euh, boo demee fële nga xamante ne fa la demoon muy Touba ji ci waawan te xam naa dina dem ci ay yeneen kër kilifa diine Touba gi mu dem ak ci waawan gi mu dem yëpp benn jàngat nga ci am bu bu bu bu bu simple boo xamante ne jarul muy sori. Mhm. mooy fépp foo dem lan lan lan nga gis ñaan la fay jële ñu encouragé ko ñaax ko mu dem c'est pour vous dire que ne homme religieux yi toujours ñoom fa ñu toogoon ña nga fa. Mhm. mais homme politique bi ñëw parfois moom mooy ñëw am fu mu leen bëgg a yóbbu am loo xamante ne moom la ciy gis-gis maanaam politique religieuse pour pour pour faire simple politique religieuse bi nga xam moom la président Macky Sall def moo baaxul. Mhm. maanaam jël l'homme religieux nga def ko au centre. su ab cas bi ma dem woo l'homme religieux su may def dara ma ne damaa tàggu l'homme religieux su ma su su su dëgëree ma ne l'homme religieux moo expliqué fekk parfois sax du noonu la demee léegi nag loolu dafa doon expliqué dafa doon exposé ki nga xamante ne mooy le guide religieux mm-hmm. maanaam man su ma déggee ñu ne par exemple décision sàngam am na dëkk bi yëpp di kaas par ñëpp ne waawul tax mu dàqi élection nga dégg ñu ne la dem na gisi ci xalif bi dem na waxtaan waxtaanoo mu delluwaat na toog jàpp ñaamborom après xalif bi communiqué wul kenn waxul kenn deful nii léegi après nit ñi ban gis-gis la am dañuy jàpp ne xalif bi dafa d'accord ak le président bi def loolu moo tax ma ne façon bi mu doon politiquer dafa doon jaxase ñi nga xamante ne ñooy homme religieux ak ñi nga xamante ne ñooy askanu Sénégal et mm-hmm. loolu mooy loolu ma tuddee politique religieuse bi nga xamante ne moom la moom la doon amal euh, yaakaar naa ne dana ànd ak moom dem su ko mm-hmm. defee keneen kii ñëw indi leneen lu yees loo xamante ne moo gën euh, li mu fi bàyyoon xoolal euh, suu Macky Sall demoon nañu fi ba gis nit ñi taxaw naan xalif bi nañu fay moo ñu diggoon bor bi nañu fay si si et pourtant bi mu compliqué bi mu taree ba tar ñoom ñoo sàkku ci moom mu wax mm-hmm. léegi xalif bi mu demee ba sàkku si ñoom ñoom ñu bañ léegi après citoyen bi doon moom du comprendre que ne xalif bi mi ngi def lépp lu mën ngeen ñuy jëfee li nga xam ne moom la waxee woon mhm. mais ñoom fa ñu nekkoon dañuy nekk parce dañoo am ay politique mhm. lu tax loolu mooy li ma expliqué léegi dañoo jëloon l'homme ñu def ko au centre te waruñu ko def au centre dañ ko war def benn guide boo xamante ne dinañ koy consulter mhm. dinañ koy demander affaire mais duñ ko exposer. Mm-hmm. mais malheureusement président Macky Sall dafa exposer wu ñi nga xamante ñooy guides religieux yi et loolu moo indiwoon benn situation bi et je pense que ni ñii euh, ni ñu doxalee nii ak ni ñu commencé demee nii dinañ ko delloowaat ba mbir mi daal di. Euh, mm-hmm. daal di del nekk fa mu nekkoon parce que loolu mooy avantage bi ñëpp. Mm-hmm. Moustapha fi ma bëggoon sax surtout ñu taxaw mooy ci le président Bassirou Diomaye Faye. ndax euh, depuis mu ñëw ci bopp nguur gi ba tey. le président Diomaye Faye yaru gi nga xam ne mu ngi koy wan sénégalais parce commencé seetlu depuis euh, keroog euh, li nga xam bañ doon def li nga xam ne mooy euh, cérémonie d'investiture bi ci jam ñaajo ak passation de service bi fi ko tàmbalee mooy dal di jóg fi mu fi mu nekkoon dem nuyu ji nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye gis nañ ni dafa xaw tànk yi dafa xaw a bañ tuuti mu dem nuyu ju ko aussi mu amat ñu gisaat beneen image boo xam ne ci korité bi frappé nañu trop muy bu muy jóg di may ki nga xam ne mooy imam bi grande mosquée loxo pour mu jóg démb aussi ñu gisaat euh, yaru bi mu wonee euh, Touba ak euh, Tiwaawan ñëpp ne c'est la première fois ñu am genre président bu mel nii waaw xam nga loolu bu ñu ñu ñu yàgg suivre ci suñu ay chronique peut-être dinañ ci bàyyi xel mhm. yàgg nañu wax ne bu dee Bassirou Diomaye Faye moom moo avancé dina am Pastef am la ca ginnaaw Pastef am la jege Pastef mhm. te bu dee Ousmane Sonko kese mën na am Pastef kese lay am ak ñi nga xam ne ñoo ay politique boobu dañu leen expliquer avantage yi candidature pré euh, li yi candidature président Bassirou Diomaye Faye am te à l'avenir nous a donné raison je m'explique mooy tey jii li ma ne day am li ci ginnaaw Pastef mooy Pastef ñëpp dañ ko doon identifier ak Ousmane Sonko. Mhm. da ngay gis ñu bëri tey jii ñu ne la ànduma ak Ousmane Sonko d'accorduma ak Ousmane Sonko mais ànd naa ak Diomaye d'accord naa ak Diomaye ñu mhm. bëri da ngay ñu lay wax loolu mhm. moo tax ñu ne euh, toujours daf dañ nekk ñaari profil yoo xam ne yàlla daf leen def c' est vrai man damay gëm ne ñoo bokk dal bi. Mhm. parce que Ousmane Sonko boo ko déggee mi wax tamit ak nit ku dal la waxam ak kàddoom ak yëpp mais tempérament yi du benn. tempérament yi du benn engagement bi ak taxawaay beek yooyu du benn jomaay li li tax mu doon surprise suñu bëri. Mhm. Euh, yar bi muy wane ni mooy les gens ne le connaissaient pas xamuñu ko woon en fait. Mhm. cest à ñoom dañu bokkoon na si leader yi nga xamante ne ñoo gënoon avare en parole maanaam waxam bëriwul woon. daan nga gis eh, Birame Souleye daan na wax lu bëri boo ko masaan dégg lu bëri bu weesoo émission yi euh, euh, conférence de presse doon yoo xamante ne cadre Pastef ñoo ko daan def mu toog te conférence de presse yooyu rarement la daan am parce que lu bëri Ousmane Sonko moo daan communiqué. Mm-hmm. loolu moo tax nit ñi xamuñu ko woon mais ñi ko jegee dëgg dëgg dëgg dëgg lii du surprise si ñoom. Mm-hmm. parce que ma wax la benn affaire gis nga yar mën nga ko tricher benn sortie yow tey jii boo ñëwee toog ñu ne Amina ñëpp naan Amina dafa yaru dafay reetaan rek dafa bëri jàmm Amina de elle est mën nga ko def premier jour deuxième jour mais mënoo see dëkk. Mhm. bu ñu defee quelques jours après rek sa jikko dëgg daal di commencé génn. Mhm. c'est exactement la même chose moom ñi ko jege ak ñi ko xam boo xoolee la mine de la personne rek kanam gi rek nga xool ko rek euh, dafa lay renvoyer ci li nga xamante ne mooy nit ku dal nit koo xamante ne euh, am na am am na retenu par rapport ak beaucoup de choses loolu la nekk di confirmer ne fi ñu toll nii moo tax xam nga monde politique monde la boo xamante ne les avance avancent te dama naan ñi nga xam ne dañuy avancer masqué amuñu chance pour euh, seen séduction mën a durer parce que boo boo avancé masque un jour viendra say masque tombé te bu mhm. masque yi tombé nit ñi dañu xam véritable nit ki kan la mooy ñi xamante mooy politiciens yi wut nga gis mhm. bu yu ñuy sol la mais bés waa la mhm. ñu demee ba jamono ji soppeeku wala bés bu ñu demee ba ñu doon dunut amatuñ ko sax nga gis ne kon beneen xar kanam ngay gis bu taxaw ci ci ci ci kanamu Euh, nit ñi loolu moo waral nag tey ji yar bi ak li muy wane c'est quelque chose boo xam ne ci moom la nekk mm-hmm. ci moom la nekk tax bu fekkonte ne nekkul ci moom da dégg ñu ne moom da ba mu falee ba léegi daa soppeeku mm-hmm. mais bañ ko falee ba léegi déggoo soppeeku mooy ni ñu ko xamee woon moom la comportement bii la amoon ni mu nekkee woon noonu la mës di nekkee ba tey ji mm-hmm. loolu c'est chance parce que xam lu tax ma wax ko boo yaroo ku la mag ak koo mag nga fekk fa mag boo xamante ne tey ji lu la neex nga wax ko lu nekk mais buñ la ne demal nga yónni kii nga ne non est-ce que doomu da nga da am kersa. Mhm. sa bopp man da ma la ne waaye ko rus. am na ñoo xam ne mooy worma yàlla daf koy def si nit. Mhm. na ñoom da ay xale ndaw nekk si koñ bi mais mag du leen jàll baat mag du leen manqué de respect ndax am benn orma boo xamante ne yàlla def na ko si ñoom te boobu nag yàlla def si ñoom ñoom ñoo koy njëkk liggéey ah. Mhm. parce que respecter dafay commencer si nga respecter sa bopp. maanaam du ma du ma du ma jàll baat kenn du ma wane réewante ba loolu nga xam ne moom laa nekk nit ñi dañ ma koy delloo après loolu moo tax ma jàpp ne tey jii déjà nit ki bu la rusee mbaa mu respecté la mbaa mu am fu la teg rek am nga mille chances pour le respect soit réciproque su ko defee ngir mën a am jëflante ci àndandoo wala nekkin bu bu bu normal bu jaar yoon. Mhm. Sénégal d'habitude ñu tàmmoon euh, suñu président sortie yu muy njëkk a def mooy bitim réew lay dem wala mhm. mu dem feneen en dehors du pays tey ñu gis lu président Diomaye euh, mu xaw a def euh, premier sortie mi defee ko fii ci biir réew bi ñu koy xaaral ni Mauritanie déggaguñu ba tey ñu ne day dem France boobu day. bëgg a dagg wala sax dagg na ba pare. <laughs> waaw mais xam nga xam nga Amina. Mhm. man dama jàpp ne dëkkandoo. Mhm. Euh, bi ci gën mooy bi gën a jege. Mhm. tey jii Macky Sall ba mu fi ñëwee dafa demoon France euh, dem ci visite boo xamante ni ñu bëri d' accord ci dañu jàpp ne am nga dañu dafa jamono France France Afrique boo xamante ne. Euh, dafa am fu mu fu mu fu mu yàgg teg Sénégal. Mhm. maanaam sunu njiitu réew bu ñu ci ma a am dañuy jàpp ne bu la falee da ngay jàpp ne yow ki lay tax doxal mooy France. Mhm. xam nga it fii un amoon na fi des des des des années sax wax amoon na fi benn sax laay wax boo xamante ne tey ji njiitu réew bu ñu la falee c'est am nga légitimité mais da nga dem wuti ji benn légitimité occidentale boo xamante ne France moo la ko jox mel ni benn genre cachet bon da nga dem France tamponné la sa këyit ne la voilà ñun d'accord nañ ak yow nii. xam nga lu tax loolu. Mm-hmm. parce que France daf fi nekkoon am fi ay régime yoo xamante ne coup d'état am na fa am régime yoo xamante ne débarqué nañ fa président am régime yoo xamante ne folli nañ fa président am régime yoo xam ne yu bëri ñoom ñoo ko doon def ñoom ñoo def la pluie et le beau ñoom ñoo ko doon def bu ñu fàttalikoo centre Afrique ak opération Barracuda ba fa nga xamante ne moo fa amoon euh, Léwomba nañ euh, opération Barracuda ba fa amoon ak nañ fa euh, nañ fa jëlee njiitu réew ma coup d'état ba ñu dem euh, préparer ji ko fële président bi def coup d'état ñu tëbal ko. Mhm. indiwaat président bi euh, teg ko par force. yooyu yëpp ñu dund ko nit ñi gis ko euh, nit ñi bàyyi si xel boo jógee foofu nga ñëw ci Congo nañu nañu nañu fexe ba dévolution bi nañ ko avaliser de bongo fils à bongo père. nañ mhm. ci dugalee loxo. bu ainsi de suite ainsi de suite dëkk yu bëri yu bëri yu bëri yoo xamante ne ñoom dañoo yàgg am conception gëm ne tey jii boo fi toog France mooy ñëw jàppale la mbaa mu teg la ci leen mbaa mu teg la ci loxo rawatina nag euh, sunu yenn président yi nga xam ne dañoo amoon complexe bi léegi loolu tant que dagguñu ko. Mhm. tant que dagguñu ko du ñu am respect vis-à-vis ak ñi nga xam ne ñooy français waaye tamit du ñu am respect ak suñu bopp. Mhm. lu tax ma ne du ñu am vis vis ak ñi xam ñooy français dañuy gëmloo ne ñii sunu ay surga lañ. maanaam fal ngeen président waaye ñun suñu surga lañu dañuy ñëw jébbalu fii voilà moo tax démb bi ma déggee kenn naan euh, président bi dem di di di di sujjóot si ay kilifa mën na ko sujjóotal sëñ Muntaxa moo ma gënal sujjóotal ki nga xamante ne moo di Emmanuel Macron waaw may leen ñu bëri fii dañ leen daan fal ñu dem sujjóotali ji président yële dem mhm. ñu tëju si nekk wax yu ñuy waxtaanee dugg seen yu leen neex après génn dem ñibbi mhm. mais bu ñëwee fii tey ji par exemple mu dem ci Mauritanie mais il que ni am na ay enjeu parce d' accord dëkk la boo xamante ni histoire moo ñu boole mais géographie daf ñoo boole moo may intéressé géostratégique yoo xam ne am na ci. Mm-hmm. géographie naka moo moo ñu boole euh, comme nañ ko doon waxee un pays fait son histoire mais subit sa géographie su fekkente ne moo ñu boole moo may intérêt géostratégique yoo xamante ne moo ñu boole tey ji gaz bi nga xamante ne moo dox suñu diggante ak Mauritanie mooy Grand Tortue bi nga xamante ne tey jii on nous dit que am na mille quatre cent milliards mètres cubes yoo xamante ne tey jii. Sénégal ak Mauritanie bokk nañ ko mu bëri ñu bëri ñu jàpp ne tey jii amaana séddoo ba nu mu demee ak yooyu sax euh, mënees na koo xoolaat mënees na koo càmbaraat donc loolu yàlla boole ñu ko muy benn beneen mbir tamit muy fleuve bi nga xamante ne ñoo ko bokk. Mm-hmm. léegi fleuve boobu ñu bokk ñaata jeune ak licence de pêche coowa licence de pêche yi am foofu noonu ñaata jeune ñoo fi dem foofu nga dégg ñu ne garde côte yu Mauritanie dañ leen a fital dañ leen a def naka sudul noonu donc yooyu yëpp tey jii man je dikk dis que bu dee am na dëkk boo xamante ne tey jii jar nañu prêter ko attention ci ci ci ci dénduk Afrique bi nii bu baax a baax a baax pour noonu Mauritanie la parce que li ñu boole ak li ñu lié ak li ñu lëkkale dafa bëri non seulement tey jii euh, bu dee euh, yoonu fleuve bi nga ko jaaree boo jegee fii dugg fee loolu benn mbir la. Mm-hmm. côté ressource tamit yàlla daf ñu cee boole mi gaz bi mi wàllum jën bi mi leneen ak leneen ak loo xamante ne tey jii yàlla def na Sénégal ak Mauritanie bokk ko xam nga tey jii euh, Gambie c'est autre chose parce que mën nañ ne Gambie amoon na fi benn jamono fii boo nee rébellion bi am Casamance. ñu ne tant que Gambie Yaya Jammeh nangul coppee rébellion bi du fay te effectivement gis nga bi Yaya Jammeh demee tey ji euh, ba Adama Barrow ñëw euh, Macky Sall daf ci profité daal di màbbal seen seen seen niñ daan doy parce que dañ daan def bu ñu defee ñoom rek mm-hmm. daan da nga daan daw dugg biir Gambie mais bi Adama Barrow ñëwee coopéré ak ñi nga xamante ne mooy euh, takk deru Sénégal yi après dañoo gis ne bu ñu fattee foofu Euh, mu dem tamit euh, Embalo nekk nekk Guinée Bissau nekk koo xam tamit ku jege président Macky Sall la nga gis ne facilement rek bu ñu bu ñu tënkee région bi rek li li mu bëgg daf koo am. Mhm. daanaka dafa dafa dafa daaneel seen base yi nga xam ne yëpp ñoom tegoon nañ ko fa kon c'est pour vous dire que say dëkkandoo tey ji am na lu bëri lay métti yoo xam ne ñoom ñoo la si mën a dimbali waaw tey ji pont pont bi ñuy wax euh, Farafeñe bi tey ji ci su Adama Barrow si la koy doog a accepté finalement mu am ñëpp daal di ci gis rafetlu ko ànd ci d'accord ci moo tax ma jàpp ne Euh, nee nañ bu demee Mauritanie bu su jógee Gambie lay dem te mhm. effectivement dama ci d'accord bu baax a baax mhm. euh, parce que tey ji ay dëkk lañ yoo xamante ne tey ji ci biir Sénégal euh, kenn ki ci biir Sénégal la nekk keneen ki nekk ci kaw Sénégal mhm. mais ay dëkk lañ yoo xamante ne tey ji Sénégal munul munul réussir yenn yenn yenn yenn yenn politique yi wala yenn yenn décision yi te dëkk yooyu dugaluñ ci seen loxo. Mhm. di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci euh, live bi di di leen fay nuyoo di leen wax aimé leen ngeen euh, partage ñeneen ñi mën cee jot ngir ànd ak ñëw ngir ànd ak ñun na ci euh, biir waxtaan bi Moustapha ginnaaw bu ñu duggee ci xuusee ci li nga xam ne mooy visite visite yi président def démb ak yi mu war a amal li des ci semaine bi damaa bëggoon ñu ñëw tuuti waxtaan ci li nga xam ne ñooy opposition bi waaye fi mu toll nii dañ ne déggatuñu leen ki ci mel ni Khalifa Sall le premier magistrat de Dakar moom gëj naa ko dégg yàgg na. ndax ci borom Dakar waaw moom fa la nekk. waa je pense que nekk fi nag actuellement ah. mhm. nekk fi mi ngi bitim réew am na benn information ba ca man voilà léegi bu ñu ñëwee ci opposition bi nga doon expliquer nii. Mhm. dafa am sama benn waay ju mën a waxtaanal Mbaye Diop maa ngi nuyu euh, mu ne. opposition bi ñenn ñi ñu ngi dans le coma ñenn ñi fi ñu toonee ay blessé na xam nga dañoo mel ni ñu jóge ci guerre non li ma la wax nii te te te j'ai beaucoup aimé son image ma ne ko lool su ma demee naa ko jàllale dafa mel ni dañoo nekkoon ci guerre xam nga mën nañ ko jëlee mën nañ ko imagé comme xare mm-hmm. mooy li nga xamante ne moo amoon élection yi dañ cey jógee ñenn ñi tëx nañ ñenn ñi gisatuñu ñenn ñi seen tànk dax mën a ñenn ñi ngi dans le ñenn ñi nag moom fi ñu toll dañoo gurg ñi ngi terteer yi. ñenn ñaa ngi du bale jomaay bi moo leen dal <laughs> daa mel ni bale bi la. xam nga score bi ñu am la ak ni ne tey jii Khalifa sa caution maanaam doo ci génn ak 5 pour mm-hmm. sol mm-hmm. na pur pur ku leen ne woon élection yi deux pour cent ngeen ci am est-ce nañ ko gëm idi nag de Idrissa Seck zéro virgule amul un pour cent moo tax may la ñun ñëpp tey jii fi ñu toon ni bu ñu leen waxal lan la ñuy wax suñu revenir ci kaaw taxaw mhm. xam nga taxaw waxoon naa ko benn jour ma ne taxaw dafa dafa dama koy dama koy misaale comme ñooñu nga xamante ne tey jii dafa amoon ñaari békki mhm. békki yi mu amoon békki yëpp Yewwi Askan Wi la woon particulièrement Pastef la woon mhm. particulièrement mooy ñaari békki yoom ne Pastef la doon jaxandu ndekete taxaw taxawul da doon raam bikii la bikii Pastef la taxawoo yaa may dégg tànki jàmbur la yoroon tànki pa Pastef léegi nag Pastef nangoo bikii mm-hmm. rek taxaw jaaxaan mm-hmm. ni ne waaw moom ndekete ni mu taxawoon am jëmm def nu yëpp siggi ñëpp naan taxaw taxaw ndekete dara nekku ci suuf tànk yi mm-hmm. ndekete taxaw am lu ay tànk Pastef ñoo ko aloon bikii maire Ndakaaru fi alors que bikii fi ay député mu taxaw siggi ñëpp ne ah mu ne moi je pèse quatorze députés moi j'ai tant de maires j'ai tant de maires j'ai tant de maires ñu ne ah wax dëgg yàlla kii jàmbaar na yëg si mhm. waaye bañ demee ba xare bi commencé bali tàkk ñu leen nangu seen i rek mu xalangu léegi surprise daal di am exactement la même chose noonu la demee mm-hmm. surprise daal di am nit ñi naan ndekete ndekete yaakaaroon nañ ne ndekete mooy gagné guerre bi ndekete moo fi mën ndekete amuloon ay tànk mm-hmm. mais tey yeewi askan wi nga yaakaar ni bu continué woon euh, ñi nga xam ne Pastef ni ñu jëlee euh, réew mi est du gën a rafet ndax yeewi askan wi amoon na doole nag nañu waxante dëgg non mais daf si am ñoo xamante ne problème déggoo moo leen dal mm-hmm. xam ku nekk da ngay xam li moom nga bàyyi kook moom. Mhm. man bu ñu nekkee si rédaction ma xam ne Amina elle fort en écrit bind. mais su ma bindee bu ma am kersa wala kii dem nag Amina yëral mu nga xool sama texte bi kat parce xam naa ne Amina mi kat accord du ko café yenn concordance des temps ak lu bëree bëri yàlla may na ko su ma dem jox Amina mu corrigé ne mënoo Moussa Fadou ni moom su xamee ne tey ji en matière de présentation wala ne mën maa ko am na benn comportement ak benn taxawaay bu mu amoon boo xamante ne ñoom bu ñu wéetoon xam nañ amuñu doole doole bépp ci Pastef la nekk mais duñ ko nangu. Mm-hmm. parce que gëmloo nañ seen ay militants ne am nañ doole et puis parfois rêve yi euh, doon nañ calculer tamit nag ne euh, que ñu bëri nag ma wax la benn affaire loolu moo faussé seen calcul. Mm-hmm. mooy jomaay bi jàll. parce que dañoo yaakaaroon Pastef du am candidat et puis Ousmane Sonko va faire comme euh, Khalifa Sall ou bien Karim maanaam dinañ dem ba ci biir du am candidat mu toog jàpp ñàmburam. léegi su toogee jàpp ñaamuram ñenn ñi nee nañ comme man jege woon naa Ousmane Sonko gars yi ñëw votel ma keneen de suite ainsi de suite ainsi de suite. Mhm. yaakaar yooyu ñu doon am nag bi Jomaay ñëwee bokk dafa tas yaakaar yooyu maanaam ñu ne Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko léegi gars ne ñëpp kon da ngeen di xaar. Mhm. ñu tajaloo di xaar léegi nag ñu dem tout droit ci benn référendum les gens se sont ne comme ñun Ousmane Sonko la ñu bëggoon ñëw ñu xañ ñu ko joxoon nañu kii ñun dañuy voté massivement pour moom su ko defee mu daal di ñuy abal ñi jóge fi loolu moo yóbbee tey jii ñi nga xamante ne ñoo nekkoon yeew yi yëpp kenn amu ci chance man je me dis que ku ci amoon lecture politique ba mbir mi démarré ngay gis campagne yi bu dee campagne bi dafay jàll journal de la campagne bi jàll. Mm-hmm. bu Amadou Ba jàllee euh, candidat Bassirou Diomaye fay jàll daanaka mbir mi jeex na. Mm-hmm. ñoom ñaar ngay gis ñuy drainer ay ful nit ñi di leen topp fu ñu dugg nit ñi seetaan leen nit ñi def ni ñoom ñaar kese nga doon gis. Mhm. waaye loolu Amina boo amee gis-gis bu gaaw doo taxaw nga ne lii jeu jeex na nga ne làmb ji jeex na ah. <laughs> wala de. nga rafetal ko maanaam nga ne ah saa man kat yëkkati naa loxo daal di daal di samp nul ne forfait. Mhm. waaye nag neexul gëm nag de. Eh, nu neexut a gëm c'est ça. neexul gëm de xam nga lu war a loolu moo tax ma ne fi ñu toll nii lii élection yi ñu génn nii war na mën a tax képp koo xam ne da def am politique léegi nga am benn lecture bu lucide ci lan nga xamante ne mooy réalité politique. Mhm. xam nga réalité politique dafa am. am na fa politiciens yoo xamante ne tey jii studio yi mënuñu koo feesal. Mhm. nañ waxante dëgg te pourtant am nañ seen récépissé parti am ñoo xamante ne kër am ñoo xam ne koñ bi mënuñu koo feesal am ñoo xam ne quartier bi am ñoom noonu mën nañoo feesal studio bi kii koñ bi la mën a feesal kii quartier bi ku nekk da xam sa bopp gis nga am politique boo xamee sa bopp te ñu bëri nag loolu moo leen sonal léegi boo xamee sa bopp nag di nga mën a dem parce que liñ fi gis lan la parti yu bëri yi nga gis ni lan la am na ñoo xam ne tey dañoo waroon bootu ji mm-hmm. am na ñoom seen candidature war woon dem parce que man je je vois mal yenn candidature mu ñu ñu bokk dem ba ba am yenn score yi. Mm-hmm. boo jëlee commune ni Boubacar Camara nga jël commune ni Déthié Fall nga jël commune ni Malick Gakou ñoon seen candidature Bassirou Diomaye Faye la woon. Mm-hmm. ñoom ñett ñoon seen candidature Bassirou Diomaye Faye lañ waroon dem jàppale ji loolu moo doon logique. parce yeewi askan lañ doon jàppale wut benn projet mais c'est vrai dañ ne yeewi ku nekk après bu ñu demee ba élection présidentielle ku nekk da demal sa ak yu ni mm-hmm. doo mais est-ce que doon ñu woon xaar deuxième tour. voilà loolu mooy loolu mooy mbir mi nag ñu bëri deuxième tour lañ doon xaar mais euh, même bu dul deuxième tour dañ doon xaar ñu am benn score bu honorable parce que deuxième tour boo fay dem tey jii kat euh, cela suppose que ni Amina booy ñëw ngi indaal ma benn 5 pour cent wala 7 pour cent comme Djibo Ka nu mu ko defoon am lu mu indi. Mhm. waaye deuxième tour boo xam na loo <laughs> mhm. ne for nañ ko waaye tamit deuxième tour bi ñoon xaar tamit te ñëwul surprise amaat na loolu moo tax ma ne biñ ci jógee euh, ñu bëri si ñoom ñenn ñi euh, wax dëgg yàlla ay ay invalide politique fi ñu toll ñu bëri homme politique yu bëri sont devenus des invalides um, des invalides politiques. invalides surtout invalides <laughs> invalides politiques yooyu ñooñu ñoo ci mel ni doyen yi ñoom nga mm. yaakaar ne tey jeexalu de jotul ñu ñu ñu lem seen i kaaka te dem. ku ci mel ni Idi parce que man Idi ba mu juddoo ba tey maa ngi dégg ñu naan Idi candidat dégg gu ma Idi président. xanaa xam nga Diomaye mooy troisième si làmb gi. Paa la yóbbu retraite <laughs> non dafa neexul a wax rek. Tyson bu mu fi ñëw yóbbuwul Manga retraite mm-hmm. yóbbuwul Touba Boudio retraite yóbbuwul xaaf du dem retraite. <laughs> xaaf est du est du dem bàyyi bàyyi baatu mu ñëw. du ñëpp dañuy dem retraite non non même lool sax seen at moo leen dul mayetul ñu ñu sëgg bëreeg ñoom. Mhm. donc loolu moo tax may la mooy Tyson si làmb ji dafa ñëw mhm. yóbbu jeunes yëpp yóbbu yóbbu payab sa retraite euh, mbër yu mag yi mbër yu ndaw leen fii bëri ñoo ñoo leen fii jëlee loolu mooy logique. Mhm. ñoom dañoo nekkoon di di jouer seen sanitatu et. malheureusement nag laay wax euh, biñ ciy dem ñu tombeel euh, ak benn candidat boo xam ne bi muy ñëw ànd na ak doole ànd na ak benn puissance boo xamante ne tey jii ñoom mënuñu ko woon a dékku. Mhm. ñoom dañoo nekkoon ci benn euh, fin de cycle boo xamante ne seen sànni tàcc la woon Khalifa Sall tey jii je vois mal mënuma comprendre day rebondir mënul am. Mhm. bu rebondiree fu muy jaar. ak mhm. naka lay rebondiree Idrissa Seck fu muy rebondiree ak fu muy jaar. Iddi kay doy na keneen ak keneen ak fu ñu jëmaat. yow koo xamante ne tey jii sa première élection en 2007 14 pour cent nga am. Mhm. nga jël deuxième si ginnaaw Abdoulaye Wade nga jógee foofu ñu dem 2012 Macky Sall ñëw dox la dox bu sew nga am 7 pour cent. Mhm. ñu ne tànne na ñu jógee 2012 dem 2019 nga am coalition de coalition bu ngandee nga tout tout avec 20 pour cent nga jël deuxième. Mhm. mais 20 pour cent ba 0 pour cent. <laughs> ñaaw mais Amina loolu noo ko mën a justifier vingt pour cent ba zéro pour cent cat ba cat la Idrissa jógee mais chute libre boobu noonu tey jii ana lan moo ko mën a justifier mais est euh, waaw kay foofu laa bëggoon taxaw nag justification bi est-ce que nekkul euh, li idi transhumé woon dugg ci nguurug Macky Sall parce que Macky Sall nit ñi doyaloon nañ ci moom façon doyal boo xam ne képp ko àndoon ak moom sax da ngaa xalangu waaw kay xam nga loolu moom moom moom la ñuy faral di wax euh, la politique du caméléon bi nga xamante ne dem si yàlla PIT def nañ ko mu jig leen mooy Amath Dansokho mm-hmm. xam nga Amath en 1993 dafa jàppale Abdou Diouf Abdou Diouf am ndam. Mm-hmm. mu dem ba ci biir mu génn mu nekkoon mu dem ba ci biir euh, d'accord ak Diouf mu génn dem. Mm-hmm. ba muy dugg jotoon na sax am ay ministre gouvernement boobu après Amath Dansokho génn dem en 2000 Amath Dansokho jàppale waat na Abdoulaye Wade jàppale Abdoulaye Wade daf ko candidat Abdoulaye Wade gagné ñaari yoon mu ànd ak ñi ñëwaat euh, ci ci ci nguur gi mu gagné mais Macky Sall ba muy gagné waat tamit bokkaat na si ko gagné si ñu ko jàppale ci coalition Benno Yaakaar. c'est-à-dire bokk ci nguur dugg génnaat dem dugg génnaat dem loolu ñu woy la stratégie du caméléon kenn moo ko fi réussir ci euh, ci histoire politique Sénégal mooy PIT bu am Amath Dansokho mhm. maanaam depuis 93 nga bokk ci ñi fal nga bokkaat si ñi fal ba 2012 ngay bokk ci ñi nga nga nga nga bokkaat si ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo fal président bi ñëw. Mhm. Idrissa Seck bi mu ñëwee il était très bien parti pour nekk président de la République mais Abdoulaye Wade euh, comme da doon affaire muusante la ñoom ñaar mu ko ne. man maay sa professionnel man maay sa kilifa ci wàllum politique di ko wan bu di demee ba démarqué ba nit ñu topp ko góor gi woowaat ko ili demaat dem ba ba nit ñu toppaat ko góor gi woowaat ko su ko defee di naan kii daal ñoom ñaar ñoom six ak neuf la Abdoulaye Wade ak Idi benn lañ mhm. mais loolu moo waroon tey ji en 2012 Macky Sall gagné ko mhm. parce boobu dañoo gisoon ne Macky bu mu génnee tourné na braqué wu ne la jàpp njàmburam Abdoulaye Wade woo na ko menacé nañ ko xupp nañ ko la cay xew-xew na ci Macky ne lànk du ma dellu dem jàppale ji ki nga xamante du ma dellu fu ma jóge woon ba nit ñi sax doon wax naa non Macky dañ mun a noonoo man ak Abdoulaye Wade jeex na mhm. ànduma ak moom euh, c'est fini c'est fini or Idrissa Seck loolu la réussir loon mhm. te dafa am benn lu mu gëm gëm ne pouvoir loo xamante ne mën nga koo def nii jot ko léegi bi mu demee nag ba Macky Sall jot ci réew mi mu yaakaar ne war na ko mën a yàkkal nguur gi maanaam dem dugg ji liggéey ak moom ma am force ñu nit ñi gis ma te boobu comprendre woon te ni Sénégal bu ñuy bàyyi bu ñuy bu ñuy bu ñuy fase du ñu fase kenn kenn dañ lay fase yow ak say doom ak say dëkkandoo ñëpp la ñuy <laughs> boole fase tout mhm. ce qui touche à Macky nit ñi dañ ko rejeté woon mhm. léegi nag moom comprendre loolu ba mu ñëwee et puis mu lâché benn phrase boo xamante ne bàyyiwu ci xel pour man mais bu ko coûté cher mhm. mooy ba mu ne man ak Macky Sall six mois ngi ni ñu doon waxtaan bi muy dugg ci gouvernement mais les les gens qui ont voté it ils se sont dit que mais mais tiens ñun kon voté nañ koo xamante ne après élection yi dafa jeex rek mu commencé di waxtaan ak ki xamante ne moo fi te <laughs> ci suuf te nit ñu comprendre ñu quoi. Mm-hmm. léegi loolu boo ko waxee nit ñi dañ naan kon kii dilkat bu mag la. Mm-hmm. comme yow da dil da def nii ñu lay paas ay nguur ngay jot def nii mais après léegi loolu kan moo lay voté ak kan mooy ànd finalement après mu mu mu nekk nit koo xamante ni politiquement dootul amati benn doole. Idi bu demee ba nga xamante ni tey jii ay ay ay ay ay ay ay. Pastef bi nga xamante ne 2014 la juddu 2014 2024 mu jot ci nguur gi 10 ans. Macky Sall la juddu 2007 donc pas autant pour moi juddul 2007 sax partem la la la en nga jot ci nga nga nga jot ci nguur gi. pour man foofu lañ foofu lañ foofu lañ war a braquer mbir mi fi ñu toll nii jamono ji mhm. lan moo war a ñi nga xamante ne ñooy jël ñooy jël ñooy jël nguur gi di surclasser mhm. euh, parti politique traditionnel yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon à savoir parti socialiste à savoir PDS à savoir ak euh, parti PDS sama mën naa ko ba ñu tudd parce que moom moom yàlla dafa def moom forfait la seen mbir mi day forfait ça à chaque fois bu ñu bu ñu jógee làmb mais lan moo waral parti yi nga ne dañuy doog a juddu Euh, bu demee élection am benn score bi euh, avancé avancé ba am benn doole bi on l'a vu avec APR bu président Macky Sall mais moom mm-hmm. on voit que ni nu mu nu mu juddoo ak circonstances yi ak euh, nit ñi sotle ko mm-hmm. moo ko jox nguur gi APR foofu laa bëggoon ñu mm-hmm. taxaw tuuti sax ndax ba tey le président de la république moom moo nekk li nga xam ne mooy chef de chef de parti bi ah, nga yaakaar ni moom mën na ñëwaat ci deux mille cinq lay doon xaw ma pour daal di mën a samp nëndam ak retour Amadou Ba ban impact la mën a am ci biir opposition bi mi Macky Sall mi Amadou Ba APR buñ bëggee am avenir politique il faut ñu indi beneen beneen beneen beneen classement bu bees indi beneen équipe bu bees mais équipe Amadou Ba ay équipe Macky def nañ seen temps ba dem mhm. Macky Sall bu fekkoonte ni mu génnee la tey jii ah, génne na ak mention honorable tey jii génn mhm. ñëwaatam day yomb mhm. ce qui est sûr et certain mooy Amadou Ba en tout cas mi ñu jàpp ne tey jii mën na ñëw Amadou Ba politiquement qu'est-ce qu'il représente amul doole politiquement tey jii gis nga euh, opposition dafa am lu muy laaj maanaam dafa am benn taxawaay benn présence bi ak benn représentativité da nga koy am présence bi Amadou Ba amu ko mës nga dégg ñu ne la Amadou Ba euh, moo moo moo moo moo suscité engouement bi engouement bi moo suscité ak it nii lu ñu ko yaakaaree xaalisam. xaalis. xaalis kese lañ ko yaakaar. te bañ ko découvrir sax. yàggul mais mais man yàgg naa leen ko dundee. Mhm. Mhm. dañ leen doon def li ñuy wax mbaran politique concept boobu la ñuy wax. Mhm. léegi bu loolu bu bu loolu weesoo Amadou Ba bi nga bi nga posé poser question nii. Mhm. xam nga malheureusement c'est pas un homme politique te un homme politique moom mooy doon koo xamante un politique autant pour moi mooy doon koo xamante ne dafay dafay dafay dafay développer atout yi développer li nga xamante ne moo koy may mu mën a mu mën a rebondir am benn résilience boo xamante ne euh, moo koy permettre mu exister waat ci jeu politique bi. mais mhm. Amadou Ba amul loolu. Mhm. xam nga lu tax loolu amu ko mooy vécu jaar jaar politique am Amadou Ba est-ce qu'il a été maire. mm mais yooyu dafay ay formation yoo xamante tey jii moo lay may nga def nii ak sa base bu nekkoon maire Parcelles Assainies bu nekkoon député. Hmm. bu nekkoon euh, occupé woon yenn poste président ak nangam ak nangam yooyu bu ko occupé woon tey jii dafay jaar jaar yoon daf dimbali politiquement c' pas pour rien Ousmane Sonko bi xëccoo bi bi bi démarré mu ne ko jëli Ziguinchor. Hmm. nit ñi duñ ci bàyyi xel mais parce que homme politique tey jii. dafa dafa baax nga am ci loo xam ne danga nga ciy da nga ciy góor am benn politique de proximité booy développé ak ñi la jege mais su fekkente ne da nga nekk benn homme politique boo xam ne kaw lañ lay xoolee. Mm-hmm. Ba ak sénégalais dañu doon gis ñu dafa amoon dafa entre Amadou Ba ak la population sénégalaise. Mm-hmm. et puis nit ñi nit benn image ci moom boo xamante ne un milliardaire richissime. Mm-hmm. Ah bon moom li xool ma naan un homme politique richissime autant pour moi boo xamante ne dafa am xaalis ba ñëpp xam ne am na mais kooku tey jii. bu ñu ko tegee et mu am keneen ku ñëw dolliwaat ci mbir yi mooy Ousmane Sonko ak Diomaye bi ñu génnee. Mhm. daal di gën a enfoncé Amadou Ba gën koo dugal mais kooku tey jii bu bu bu retourné perte na élection yi wala ñëwaat dugg ci langue politique bi lan la war a mën a jaay askanu Sénégal. Mhm. xam nga politique dañ ne dafa am ay def comme buñ koy buñ lay def marketing politique bi dañ naa naan euh, c'est un produit qu'on vend. homme politique bu nekk dafa am produit bi muy jaay parce que ban produit lañ indi jaay ñu ko ay vertu mhm. lañu lañ jaay nit ñi mhm. ay vertu ñun dañu mais Amadou bu lay jaay sénégalais je ne le vois ko ban produit lay jaay bu dee compétence lay lay jaay dafa def ay preuve am compétence ba nopp mooy Macky Sall occupé na poste yëpp ñëw ma na ñëw na ba dem mhm. moo tax Pastef bi ñëwee dañu indi benn produit boo xam ne ci marché bi am nañu ko fi tegoon mais amuñu doole bi Pastef am ñoom boo waxee toujours da nga gis dafa nekkoon sa finalement benn leitmotiv maanaam Ousmane Sonko def na 15 ans impôt dem na amul lu ñu ko toppee loolu lañ doon def benn chanson di ko wayee fu nekk parce que Sénégal dafa xam rapport digganteem ak xaalis mm-hmm. man ji su ma la dénkoon xaalis rek fëgg la xaalis guddi nga jox ma xaalis dama naan yii Amina de macha allah. Mm-hmm. xaalis ba ma ko dénkoon laaj ma ko sax waaye xaalis guddi laa ko fëgg mu dellowaat ma sama xaalis mm-hmm. suñu diggante ak xaalis moo mel noonu mën nañ leen naxee feneen wala leneen nag nga wax mu deñ wala mais xaalis dañu dañu xam suñu diggantee xaalis. Mhm. léegi boo ne nit ki def na 15 ans impôt et domaine euh, mosuñu koo jiñ dara am ñenn ñoo témoigné ne contrôlé na leen ñu doon ko jéem a guerre mu bañ ñu ak Sénégal dañu naan tiens kii kat il est digne de confiance. Mhm. loolu benn la boo comparé ak Amadou Ba nga indi Amadou Ba Amadou Ba ba léegi ban produit la mën a jaay sénégalais. dara man man man milliardaire bi ñu may jiñ aw ma milliard. bu ñëwee taxaw ne am naa expérience Idriss Seck ne la man tamit am naa expérience de Khalifa Sall ñëwaat taxaw ne am naa expérience de mais ñële seen njub bi ñu indi woon teg ko nii ci wet gi ba léegi amaguñ benn répondant woon ñëw na contrer leen mm-hmm. bu jub boobu weesoo mu ñëw ne buumu jaam gi tamit dañ koy dagg franc CFA bi nga xamante ni activiste ñëpp ci nga ñëw ne dañ koy rompre suñu diggante ak ñoom mais yooyu boo ko jaayee ak jeunesse bi vague bi nga xamante ne ñi ngi dem ñëpp bëgg changement parce que mhm. dañoo maar ci système bi nga xamante ne moo fi nekkoon mais dañ mhm. euh, yi nga xamante ne dund nañu dund dund mhm. boo xoolee parti socialiste bi seen temps weesoo de waa kër Abdoulaye Wade dañëw bi seen temps weesoo bañ tourné seen page est ñëwaat nañ ñëwaatuñu de Euh, Macky Sall sax mën nañu ko boole ci Abdoulaye Wade mais bi Ousmane Sonko ñëwee moo tax ñu ne fi ñu toll nii beneen parenthèse moo tijjeeku. Mm-hmm. léegi ki war a ñëwaat kan la. kenn xamagum c'est la grande question foofu sax laa bëggoon ñu ñëw ana ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo war a utu utu jomaay parce que am na sama benn xarit boo xam ne moom nga ndim maamu patriote la. Mhm. ko ne toog ñu koy def benn jeu boo xam ne entre li ñu soxla ci Sénégal ñoom ñoo ko a def mais euh, nga yaakaar ni euh, ñi nga xam ne ñooy paayu màgget yi moom fi mu toll nii doy na sëkk mais nouvelle génération bi feeñ parce que ci biir parrainage yi ak yooyu gis nañ ci ci ay ndaw yi nga xam ne génn nañ ko tuddu parrainage parrainage moom bu ko fi tuddu parrainage kenn xamul lan la parrainage yoo xamante ne ñoom après bi ñu ko fi indi parrainage kenn Ba ñoom xanaa voté luñ ko ah, ah xam nga parrainage moom ay caaxaan la woon boo bëggee dégg dëgg la parrainage bi ay caaxaan la woon moo tax gis nga opposition tey ji Pastef bi muy judd en 2014 di ñëw mm-hmm. xam nga comme ni ñu koy waxee un président. Mhm. on le voit venir dañ koy gis muy ñëw. Mhm. ki toog ci nguur gi day kii ñëw kii daw di ñëw damay xam ne man Amina mi mooy wuutu mais du ma ko bëgg a siggi xool. Mhm. moo tax chroniqueur bu New York Times bi doon wax on n'a pas Trump venir parce qu'on ne voulait le voir venir. gisuñu ko mu ñëw parce que bëgguñu woon gis ko mu ñëw. président bi ñëw ñoom dañuy dañuy xam kii ñëw nii mi ngi Macky Sall lan moo waral bu mu génnee bu mu ne tëb génn rek Abdoulaye Wade ne ko si nga dut ko baaram topp ko dàq ji ko. Mm-hmm. parce que xam na ni kii mu dem ni kii mën na koo wutu. Mm-hmm. ak quatre-vingt-dix pour cent boo ko ne woon tegal te mu misé la ci Abdoulaye Wade Macky Sall lan moo waral mu dem ba benn moment tey mu bàyyi Sonko bàyyi kii commencé jënd glace di def amnistie yu nekk. Mm-hmm. mais xam nañ ñii ñooy ñëw. te boobu mi ñëw Ousmane la woon. mais bu ñu ko écarté ki ñëw tamit si quand Ousmane Sonko la jógee ñëw. Mhm. moo tax toujours man loolu dama ko gëm un président on doit le voir venir dañ koy gis muy ñëw. Mhm. te boo ko fàttee nag. boo ko boo ko fàttee tey jii surprise mooy am mooy surprise bi ñu am ni ak président Bassirou Diomaye Faye. Mhm, mais maa ngi doon maa ngi doon wax dagguma la mais maa ngi doon wax ci parrainage yi nga nga nga nga nga doon ma mbéj mais quand <laughs> gis nañ ay nouvelle génération bi nga xam ne ñëw nañ ku ci kooku docteur Abdourahmane Diouf déglu naa ko ku ci mel ni euh, Pape Djibril Fall euh, il n'a pas démérité parce que c'est ça première fois am na paayum paayum fi tane paayum mel ni euh, kële Idi Pape Djibril la ko tane mais ñu ngi wax aussi ñu ngi ah, wax waaw Idy moo jël premier ci zéro parce que zéro quatre-vingt-dix la Idy moo jël premier ci zéro <laughs> attention mais Idy waru am zéro Idy Idy ak fi mu jaar yëpp nattu la rek nattu yàlla la rek Idy Idy Idy waru am zéro mais ku ci mel ne ay ñoom Pape Diokoy Fall ay ñoom euh, Thierno Bocoum est-ce que ñoom mën nañoo mën nañoo ñëw bokk ci ci langue opposition bi Pape Djibril Fall man damay jàpp ne boo amul chance dëgg dina jël retraite anticipée ay politique non bu amul chance laa wax yàlla rek xam ne am suuf bu amul chance dina jël retraite anticipée je m'explique mhm. dafa doon ndaw boo xamante ne bi mu duggee ci politique dafa dafa dafa suscité benn estime bu bëri ak d'accord ñëpp adhéré ci ni mu doon politiquer mhm. mais ni mu doon waxee autant pour moi mais ñi ko doon def ñooñu ñëpp benn camp lañ farewoon daanaka mooy waa kër Pastef mhm. ñoom dañu jàppoon ne Pape Djibril toog bi mu toog jàkkaarloo ñoom la fa toogal ba yaa ngi fàttaliku sax benn jour mi expliqué ne Ousmane Sonko ba muy génnee livre doon na ko bëgg invité mun na ko euh, am ku ko bëggoon invité xaw mun na ko non boo ñëwee dañuy foog ne Pastef nga far wala yu ñu mel yooyu noonu mhm. ba finalement mu jëwul dem donc amoon na ay yoo xamante moo ko dugg ba mu dugg ci politique rek ñu ne ko braquéwul nga jàkkaarloo foofu la mënoon na ñëw def comme Déthié Fall gis nga politique muus la. Mhm. garab la boo mënul dox fexeel ba ngis koo xamante ni na laa boot mu boot la. nga boo mënee taxaw nag nga taxaw di commencé defanteeg ñoom mais mën a góor dox commencé di xeexal koo xam ne mi ngi daw. Mhm. mais bu la kàjjee fa la ngay dal ji pour man erreur la def stratégie politique la def. Mhm. c'est ce que Déthié Fall a réussi indi siège am bu ñu def euh, réunion yeewi askan ñu ne siège PRP siège yu PRP tey ji ñëpp xam nañ ko mhm. ba de ba mu dem nag ba affaire bi gonflé mu réussir loo xamante ne il a réussi à se faire un nom mhm. ci wi mhm. te loolu mooy intérêt pour man bu mu génnee rek dugg politique dafa waroon dem dugg yeewi askan wi te gis nga bu duggoon ci yeewi askan wi tey jii ministre sax mën na ko doon ci gouvernement Ousmane Sonko Pape Djibril Fall moom bu génnoon rek nag fa du tee mën am député pare dem ànd jeeg ak ñoom dem bokk ñu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dem occupé devant de la scène bokk ak ñoom xeex bi nga xool tey ji lu am. mais moom ca non la la bokk. mu dem bokki non aligné yi. Mhm. yow non aligné benn député 665 lan la fay jëriñ. ngeen doon ñaar donc il il il il s' est il s' il s' est auto exclu. ci li nga xamante ni mooy jeu politique bi ci ci ci anam yoo xamante ne pour man mënoon naa ñàkk. Mhm. parce que yàlla yàlla yàlla may na ko ni mu démarré macha allah bëri na ñoom ne amuñu ko. Mhm. première fois nga bokk Sonko noonu démarré plus forest mhm. mais après dafa fexe ba conserver ko avancé avancé fa avancé ba tey ji yàlla def na tey ji mu nekk premier ministre. politique dafa laaj lecture politique lecture politique boobu noonu nga xamante ne moom la manqué moom la Thierno Bocoum manqué Thierno la woon chaque jour ma wax ko mhm. tey jii nekkee maire maire maire bu Guédiawaye noonu la ñuy maire bu Parcelles Assainies mhm. noonu lay nekkee maire bu Parcelles Assainies mu gagné ko bu gagnoon Parcelles Assainies tey jii kan mu naan Thierno Bocoum amul légitimité tey jii ani Thierno Bocoum fan la bokk ani mouvement agir mhm. gâchis la loolu du perte Mm-hmm. donc voilà des personnalités politiques yoo xamante ne pour man manque de lecture politique moo leen yóbbee ci situation yu bëri yu ñu nekkee tey jii politique am na fooy toll il faut nga am tuuti recul nga jàngat situation bu rëy man damay jàngat ma taxaw ma xool ma ne ah fi ñu toll nii Amina moo yor le vent en poupe ñëpp moom lañ àndal affaire yi. Mm-hmm. ma dem xool jàpp ci dem ba jong dem ba jekkas ni ko ba xoolaat mbir mi ñu demee yaa ngi lim sànq docteur Abdourahmane Diouf. Mm-hmm. kooku demee nañ def attention si moom mën na nekk benn opposant bu gi fi nekk tey jii. il faut ñu bàyyi ci xel parce que noonu la ñuy politiquer moom bu mu génnee gis affaire yi euh, carte yi dem nañ bloqué nañ ko Amérique mm-hmm. mais dafa génn ba ko ñëpp déggee mu naan Diomaye mooy Abdourahmane Abdourahmane mooy Diomaye ñu ne mais tiens ñu bëri kontaan parce que waa mm-hmm. Pastef comme niñ doon xoolee Pape Djibril lañ ko doon xoolee maanaam dañ ko bëggoon mm-hmm. Abdourahmane danaan def post sax ñëpp di bind ñëw suuf naan kan docteur ñëwal Pastef sa parti yeewu la docteur docteur ñëwal nii keroog bi mu ne dafay ñëfu ñu bëri dañoo kontaan. Mhm. kontaan ci moom tàccu ko tatagal ko mu ñëw mais ñëw boobu mu ñëw tey ji bu demee ministre de ministre. Euh, de l'enseignement supérieur et de l'innovation mhm. mais bu fa demee tey ji mais dina am ay des directeurs yoo xam ne moom moo leen di proposer ñu nommé leen. Mhm. dina fa am ay ñooñom yoo xam ne dina leen gën a dugal awale boobu noonu dina am benn ancrage awale dina commencer noyyi. xam nga li ma la wax. bu ñu demaatee beneen euh, fi ñu toll nii élection euh, législative yi di ñëw mais du ñàkk ñaar wala ñett ay nitam am ñaar ñett ñoo xamante wala mu ne dama bëgg nekk maire bu Tëngéej. ba locale weesu nag ba léegi nekk nga ministre boo xamante ni ñëpp xam nañu Abdourahmane réussir na ministère ñu ne xool leen bañ ko dénkee léegi mais ñu contrôle Sonko ak Diomaye wala ñu d'accord ñoom dañ naan Abdourahmane lañ jëm. Mm-hmm. bu gënee taxaw jàkkaaroog ñoom dañ naan Abdourahmane mi ñam nañ ko ci ministère def na lu baax def na lii def na ay résultat am mais il faut il faut que ñu il faut que ñu jox ko chance am xool ndax mën na yor réew mi loolu moo tax ma jàpp ne tey jii génération boobu ñu ëpp chance sax revenir en force pour mën a nekk véritable euh, rival ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ñoo nekk sunu sunu sunu sunu sunu sunu njiitu réew yi fi nekk. Mm. njiitu réew bi fi nekk di Bassirou Diomaye Faye mais pas ñi nga xamante ne ñële moom pour man ñooñu benn cycle la. Mm-hmm. benn page bu ñu doon tëj la. Euh, effectivement dafay tëju ak ñoom. jeex na est-ce que est-ce que est-ce que page boobu sax du tëjaale li nga xam ne mooy carrière Karim Wade ci politique Sénégal parce que Karim yaakaar naa ni fi mu toll nii. li ñuy mm-hmm. wax mooy est-ce que dina dina ñëwaat Sénégal lu ci bari nag nee dafa war a ñëw 2029 mu euh, posé candidat nit ñi xam ne sénégalais la waaye ba tey interrogation point d'interrogation boo ngi taxaw. waaw xam nga man dama jàpp ne euh, Karim ñi ko mu ngi mel nii mbër moom nga xamante ne bëggul bëri ngeen jàpp ci ginnaaw gi di buux rek tey nga bëre par force tey nga bëre par force. Mm-hmm. kooku du tax loolu taxul mu daan te man image am loolu la may jox parce que su fekkente ne yow euh, dañ la génne si dëkk bi mais Ousmane Sonko par exemple am na ñoo xam ne ñu ngi doon suscité naan euh, bëggoon nañ ko génnee réew mi ak yu ni mel ak yu ni mel dàq élection yeeg yooyu yëpp mais. li ko may tey ji mu a premier ministre mais courage politique am moo ko may. Mhm. man dama gëm ne courage politique lu mu la xañul du la ko may. Karim lan moo waral tey ji mu def ay effort ne serait-ce qu'ay effort di góorgóorlu ñu naan Karim jàpp nañ ko frontière bi war a Karim dogaale nañ ko fële wala Karim jaar na yoonu suuf bi Karim def na ba dugg si mais. le fait mu def réaliser ay prouesse góorgóorlu teg ay jéego ñu ñu ne ah kii kat bëgg na ñëw ñëw na ba si réew mi ñu jàpp ko ak nii ak nii mais laaj dañ xam ne kii bëgg na ñëw. Mm-hmm. mais depuis bi mu génnee ba léegi chaque élection ñu ne léegi ñu mm-hmm. léegi mu ñëw. ba gisuñu ko noo mënee comprendre koo xam ne da nga ne da dem élection présidentielle ñu dem ba war a programmer résultat définitif yi tegoo sa bët Sénégal. Mm-hmm. tegoo sa tànk Sénégal moom bu ñëwoon tey ji yàllaa ko bëgg nag axlu zéro la naroon non bu ñoon tey jii Karim ci euh, axlu zéro lay bokk. loolu kenn non non mais Moustapha attends man man contraire bi laa yaakaar nga yaakaar ne tey Karim bu ñëwoon Sénégal mu ànd ak papam campagne surtout. non papa ji mënul campagne fi ñu toll nii. mais benn génn rek xam nga da koy jaay. mu ànd ak papam peut être sénégalais namm nañu Ablaye Wade namm nañu. gis góor gi Karim bu àndoon ak papam ànd ak Sindiély ànd ak Viviane. ñoom ñeenti ñëpp ñu wër di campagne dugg ci oto du tax Karim Wade gagné élection Sénégal fii man su ma mësaan gis du du question dara nag de <laughs> mais su ma mësaan gis Amina ni ko toog naan non Karim laa gis mu gagné élection yi mais dem naa tiens kii ban Sénégal la ne. Mhm. xam nga boo bu la yàlla defee tuuti euh, ngay observer di seetaan di gis. Mhm. parfois nga wax ñu ne wax dafa far wala def ni mais loolu amul li ñu doon wax ci candidat Ousmane Sonko ak Diomaye amul. Mhm. tey ji loo ci gis ay zéro virgule zéro virgule zéro virgule zéro virgule kese nga gis te amaana sax ñun suñuy wax sax wala suñuy analyse daanuñu leen jox ay zéro virgule mm-hmm. parce que ñun daan nañu wax au pour cent mm-hmm. Khalifa Sall dina génn ak sept ñu ne dina am sept pour cent cinq pour cent huit nangam ak yooyu lañ doon calculer mm-hmm. mais ñu ñëpp kenn xamul woon ne kenn du si yegg sax trois pour cent te réalité bi wan nañu ñi ñi posé ñu trois pour cent Mhm. Karim Wade c'est exactement la même chose bu demoon ñëw nii bu bu bu ñëwaatoon tey jii jàpp ci langue gi bokk mënul am cinq pour cent ci électorat bu Sénégal yi mhm. parce que politique bi daf koo rawee lu bëri bëri bëri bëri bëri dafa dem entre temps terrain bi comme ni ma ko yàgg di expliquer rek confrontation diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko dafa yàgg combat boobu dafa yàgg projecteur yëpp ñu braqué ko. Mhm. yeneen mbër yu ndaw yi ñi nga xam ne ñoo nekk yi yeneen acteurs politiques yi dañoo yàgg nekk ñoom yëg ci tribune yi daf ñuy di seetaan. Mhm. Ousmane Sonko ak Macky caxabal na ko dina ko daan kii dàqi waat na ko kii jàpp na ko diw na ko saafara ñoom ñëpp ñu nekk spectateur taxaw def ñu di seetaan Sonko ak Macky ñu ngi dem procès ba si nañ kii def na lii kii def na mais Amina jàmmarloo bu yàggee noonu te ñii duñ fàtte ñeneen ñi. mais ñëpp daal di braqué ci ci ci combat boobu léegi bi ñu demee foofu nag ba deux mille vingt quatre ñëw ñu war a bëri mais ku ñu gis ñaar ñooñu la ñuy gis. Mhm. parce que projecteur si ñaar ñi la ñu mhm. ba ñu demee ci campagne bi tamit ñu ne yéen ñaar caxabal bi ba yéen nee nañ euh, CNG nee na mënatoo leen a bokk kii gëstu indi jomaay to taxaw di sotti saafara jomaay di jàppale jomaay kii indi Amadou Ba ba pare dagg yat di dóor Amadou Ba di caaw ñu naan déet déet mënu damaa bëgg mu gañe waaye dina gañe wut yetam fàq. non noonu la demee di bi demee ba ci biir CNG ne non non <laughs> Ousmane Sonko dañ ko jaay doole génne ko mag yi moom ñu ne ko yow teg si ñoom doo bokk Sonko ne grawul du ma bokk léegi du ma bàyyi noonu espace vide su ma bàyyi vide mën ngeen gañe daal di jël Diomaye indi teg. kële ne Amadou Amadou dugg si ba pare wut ya dàq dàq ji Amadou Ba ci biir enceinte bi di caaw jëmale suba. <laughs> est-ce que Amadou sikkul. <laughs> nee am na Amadou lu mu ko def nag loolu la ñu wax nee nañ Amadou <laughs> est-ce que Amadou nee nañ daa jël cumukaay am lu mu def ci cumukaay loo xamante ne waa ji dafa naroon naa téppatiku ñi ne Amadou am na lu mu def waa ji ba waa ji mënatu koo xool ci biir waa daal mu mujj gi sax mënatul xool Amadou ci làmb ji Amadou dem ma nag ba saa mu léegi nan tas làmb ji sax bu làmb amati. moo tax tas na yaakaar yu bari ci yaakaar yooyu mu tas léegi. gis nga gis nga gis nga image boobu noonu la deme woon ak ñoom léegi euh, moo moo waral nag après face to face bi dafa yàgg mm-hmm. léegi bi mu yàggee euh, ça a profité à Diomaye mm-hmm. mu profité ci bu baax a baax après euh, profité ci sympathie bi nga xam nit ñi amoon nañ ko ci Ousmane Sonko daal di koy transféré mu ñëw ci moom après bi mu demee ëpp mu passé première tour mm-hmm. wax ji euh, wax ji daal noonu la demee waaye ba tey ci biir kër Macky Sall donte génn na sax nekkatu fi mais coolaang fa ba des ba tey de euh, Omar Sow mi ngi wër di continuer ak ay accusation laa ko mën a tuddee xaw ma ndax li mu wax li mu wax moom ak li euh, doyen Adama Gueye wax fii démb dafa mel ni mu ngi bëgg a yem li mu wax ne yëpp ne Macky ko moom jet bi moom si gën a jaaxal te ñu bàyyi Macky te ñu bàyyi Macky mu dem mais xam nga man dama gëm ne nit boo nekkee ak nit mhm. mii def ay looxoor nga noppi ba mu dem mhm. nga koy doog a yow yaa gën a yées kooku doon def looxoor yi man loolu laa gëm Amina bu ñu nekkee ñu ñaar nga nekk ci kër gi di ruube def lu nekk te aw ma sañ-sañu génn dem gis kilifa kër gi ma ne ko Amina mi ngi ruube mi ngi def nii mhm. ma bàyyi ba Amina takk ay bagage dem Maroc wala mu dem États-Unis ma jug taxaw taxaw ci mbedd mi takk rajo yi naan Amina ñi la daan def ci kër gi ñi la daan def mhm. man maa ko yées sax parce que ba ma ko waree waxuma ko ba parce que pour man accusation yi mu def ce ne sont pas des accusations gratuites. Mhm. nañ ko woo bu dee dafa sosalaate mu mu mu fay. bu dee bu dee lu wax dëgg la mais xam nga tamit parfois ay détails la yoo xam ne tamit doo doo comprendre parce que mën mën ñenn ñi mënuñ ko jàppee détail te man dama leen di comprendre. Mhm. parce que dañ naan dëkk bi euh, priorité ñi ngi feneen. que koo xam ne mhm. dafay taxaw naan ñu ki yóbbu na li ki yóbbu na li. lii ñëw suñu kanam mi ngi mooy yenn gëstu yaa ngi ñëw yeneen seet yaa ngi ñëw yeneen ak yeneen yi loolu suñu kanam la nekk te loolu bis bu ñu demee ba yëgsi nag su boobaa aha si la doom di neex ndaayam lu waay sàccoon dina leer lu waay sàccul dina leer jarul yàkkamti mhm. def ay accusation di wax nii pour man su ma doon mbokkam ku ma ko jege dinaa ko ne wax dëgg yàlla na noppi na def li Serigne Cheikh doon wax mhm. mettre une frein sur sa langue dafa am solo mhm. jékki-jékki nga jël frein mu mel ni car rapide bu amul frein kon ma jàpp ne rek euh, vraiment euh, war na war na mën a xoolaat daal comportement parce que moom doog nekkul woon APR de mhm. moom doog nekku fa woon donc lan moo waral tey ji mu takk rajo di wër di wax nii rek te na mu koy waxee ni euh, noonu la noonu la ko bañee woon wax ba mu nekkee si ñoom moo tax ma jàpp ne tey ji il a intérêt à revoir son comportement et sa posture. Mm-hmm. mais est-ce nekkul maire Macky moo tax parce que du tey dong Macky Sall ne déjà du ma présenté wu du ma briguer ci la jooyoo yeeg lépp commencé à perdre est-ce que Sall moo tax tey ñuy génn di wax li ñu xamoon wala li ñu yëgoon yëpp ñu génn di ko wax. mais ñi ko mere bëri na mais ñi ko mere bëri mais dañu am retenu Macky Sall ñi ko mere Sénégalais ñoo ko njëkk mere. Sénégalais yi nga xam ne dafa indi candidat ñu ñu sanctionné ko boole leen ñoom ñaar sanctionné mais ñooñu ñoo ko njëkk a mere. Mhm. yow nga yaakaar ne président Macky Sall ni mu génnee dëkk bi nii c'est c'est c'est gis nga ñu demoon mer moo ñaata nit ñoo sax juróom fukki quelques personnes si koo xam ne def nga 12 ans na nu mu doon doxalee ak sénégalais président Macky Sall biy génn dañ naan aéroport bi suuf embouteillage dana mel ni coupe boo xam ne moo dugg Sénégal mhm. ñëppay dagg dem ne wax dëgg yàlla dañ koy jaajëfal dañ lay féliciter parce que ni mu demee la mais xoolal ni mu génne xoolal ni mu génne njabootam sax ñoo ko jiitu mu génn comme si à la limite dañ ko doon dàq ci biir réew mi naan kan génnal dëkk bi génnal dëkk bi. Mm-hmm. moom ne doyal naa moom moo ñu ko doyal dem ba ne doyal naa <laughs> mais war woon demee noonu moo tax ma ne war woon demee noonu tey jii kooku bu Sénégalais doyal ci moom yow nga waa di tirer sur une ambulance mm-hmm. est ce que loolu taxawaayam la moo moom Omar Sow loolu du taxawaayam. Mm-hmm. ne revenir à la raison mu ànd ak dal. que pour man boo àndee ak nit am gore ñàkk gore da ngay am di gore da ngay ñàkk di gore man du ma ànd ak ak yow ngay def say dëngate ma jàpp sama ñaaw ba nga sori ma di ko wax su boobaa du ma man du du ma koo xam ne damaa honnête mhm. su may ànd ak yow booy def say dëngate damay am courage ma dénoncé ko mhm. loolu la ñuy loolu la ñuy wax euh, homme de confiance loolu la ñuy wax homme d'état waaye ànd ak nit muy def ay loo xóoram di def nii di def nii ngay tappale ci ak moom ba mu sori la nga doog a wax. noo man gëw ma loolu man. Mhm. ñaaw na dem mi ngoog Moustapha waxtaan bi amoon na solo bu baax a baax. Ah, waaye daa jeex daa mel ni jot na ma yeewi la. Hmm. man foogoon naa duñ fi sax yàgg tey parce que comme tey gars yi dañoo daw. non te pourtant hmm. yaa ngi yaa ngi doon wax hmm. yaa ngi doon wax eh, nit ci duñu la tàmmee seetaan dañu la maa ngi gis ñu ngi lay Moustapha ay kër kër kër kër. surtout xale yu jigéen yi eh, dañoo baax nag ñu ngi lay seetaan. samay xarit <laughs> naa la boole dem de. <laughs> non dañoo baax nag dañoo baax internet yi dañoo baax man moom aw aw ma seen fay wax dëgg yàlla internet yi wax dëgg yàlla en tout ñoo ngi ñaata ñoo ngi un te ñu ci bari ay hmm. jigéen lañ maa ngi gis Moustapha kër kër hmm. kër non ñoom dañoo baax rek Amina ay ay kii lañ dañoo baax rek <laughs> bu ko yóbbu fa mu yeggul <laughs> <laughs> ah baax na rek est leen Mansour moo nekk di def ay kër noonu sax wala bité boo demee ñoom la de am nga ñoom dañuy bëgg affaire bi saf quoi dañuy safal quoi ah, ah man maa ngi liir de. Hmm. maa ngi liir tur yi maa ngi gis. bu baax hmm. mhm. en tout cas merci <laughs> tey da ngaa jógee Roubaix quoi jaara de la passe virus bi tey quoi da ngaa jógee Roubaix tey. non du tout non grawul on en tout cas merci ah. kontaan naa ci animation bi ak. Euh, Euh, débat bi c'était intéressant yaakaar naa li ñu doon wax amal na solo ñu doon déglu mhm. lépp lu ci dëng ak képp koo xam ne sentir na ne laal nañ ko suñu wax ji rek ñu ngi ciy a mhm. jox rendez suba incha allah ak euh, suñu chroniqueur boobu di Pape Moussa Sow mhm. mooy ànd ak ñun ak honorable député euh, Ahmed Aydara ñun ñooy dajaloowaat ci tim bi tey dañoo nekk ci ay yitte moo waral maag Amina ñu toog fii rek doon wéttali nit ñi si plateau bi quoi am na solo bu baax a baax ñu leen a jaajëfal bu baax a baax di leen euh, sant di leen gërëm surtout euh, di leen la fanaanub jàmm waaye tamit di remercier waa régie bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon euh, ci ginnaaw di leen wax restez en fidèle compagnie avec nos programmes sur 2A